maanaam maanaam tey yow yaa nekkoon porte parole bu OFNAC ci biir OFNAC waxuñu li nga xam ne moom moo am tey ñu gis ko jëm ci ñooñu nga xam ne yaa ngi wax ne dañu jóge ci ay poste tey ñu tegal leen bon daanaka fi toll nii ñu nekk ci fauteuil ndax dañoo yokk seen seen i grade mais euh, bu ndee xool kuréel gi office national de lutte contre la corruption bu fekkee dafa génnee rapport épinglé ñenn ñi ñooñu lan moo war doon seen ëllëg bu ñu ko jaaralee ci yoon. ci li ah, waaw. Euh, buñ ko xam nga. OFNAC yoon wi ko teg. dafa ne nit mën naa porter plainte jox ko présidente bi maanaam fa nga nekk nga gis fa yoo xam ni daal gis nga ni jaarul yoon jaarul yoon te léeg sax ma yow mën na laa gaañ mën naa gaañ ñi nga nekkandoon hmm. ñu def plainte jox ko président dox na wala nga def sa dénonciation anonyme boo xam ne jarul nga yaasitu ah man kat seen TV gi ma nekk daal suñu directeur bi nangam nangam nangam nangam nangam nangam ñoo jot rapport loolu lu nit ñi mat xam la parce que nit ñi dañuy wax lu ñu xamul rek. boo ko ko jotee dafa am fu muy jaar fu bëree bari comité de lecture rek bureau enquête investigation et cetera xam ne ku mën a jàng fa nekk ñu mën a jàng bu ko xoolee def observation jox ko chef am chef am inspecteur général d'état la kuñ naan Ibrahima Faye bu am xam-xam bu am xam-xam mu seet def observation jox présidente. mu defi observation am ñu seet am na beneen comité de ak beneen ñu seet bu ñu ko xoolee ba xam ni lii li ñu dénoncé lu am la wala léeg-léeg ëpp na ko ñu ne ah lii kat nag jaar na ñu def dossier bu ko defee ñu bindu dossier comme euh, ki ki jiite woon bi ñu def dossier dossier boobu ñu paree fukki nit ak ñaar loolu na ko nit ñi xam. mooy fukki nit ak ñaar ñi nga xam ne président de moo leen nommé. Mhm. décret fukki nit ak ñaar moo leen nommé boppam. Mhm. président day foog ku ci ne mu jox la benn nga yor ko ay fan ñu daje assemblée générale yow loo ci xam yow loo ci xam ñu soppi. ñi ne kii garaaw na war nañ ko kii féete fii ñenn ñi féete fii bu fekkente ne mat na deux tiers bu ñu matee deux tiers. ñu jël décision transmettre rapport bi procureur de la république loolu lañ koy defee. alors bu ñu gisee bu ñu la déggee kon mën nañu wax monsieur Niang que ne eh, est-ce que OFNAC kon mën nañu wax ne amul prérogative maanaam ay dafa dafa gàtt. ba ah, loolu gàttut. gàttut bu demee hmm. gàttut dem saytoo saytoo saytoo seen mbir ba xam ne réew mi am nañ fi ay ñoo xam ne ñi ñi ngi koy saax saaxee ñi ngi koy defee nu leen neex. Hmm. nga bind ko na mu demee. mu jaar fa mu war a jaar. Mm. fi mu war a jaar fépp. Mm. ba pare teg ko ci loxoy procureur de la bi mais kooka kay am dam yàlla am mais président amuñu sañ-sañ na ne ko. Mm. defal président euh, sañ-sañ euh, procureur moom ñaar rek koy dox ko muy ministre bi nga xam ne mooy ministre de la justice ak président de waaye of nag bu ñu xasee joxe rapport bi ah, jeexal mm-hmm. nañu waaye li nit ñi war a xam mm-hmm. aussi mm-hmm. mais loolu Nafi Ngom Keita moom moo ko def moom rek nga war a joxoñ fii affaire boobu jaar bépp c' est pas l' affaire Nafi Nafi ku ne da ngay porté plainte kay porté plainte OFNAC gis ngeen fi ma leen wax fi mu jaar fépp foofu lay jaar te fukk ak ñaar ñoo ñuy décider président leen tal jàpp ngeen ne fukk ak ñaar ñooñu danañ ànd booloo di ne di wutali jafe-jafe Cheikh Oumar Anne moom moom moom moom Macky Sall léegi dossiers yi nga xam ne jot na dem jot na jëw ñëw ci nag mu def liggéey boobu nga xam ne wax nga ko sànq wax solo si mu am ba dem ci procureur de la république bu weesoo daanaka bu ñu fàttalikoo jamono yu sànc yu Thiès euh, euh, bari wut wala boog dégguñu fi dossiers yoo xamante ne mën nañu ne euh, procureur activé na ñu dem defi l'enquête ba ka nga xam ne moom la ñu ci tuumaaloon ñu jàpp ko rëq bi kon ci ci fan la nekk fan lay bloqué dafa xaw mel ni yéen da ngeen ngeen bal ma. Mm-hmm. da ngeen a wax ngeen xaw a gis dëgg gi xaw koo kii. ah dañuy laajte rek ñu xam nga waaw dama ne. <laughs> Mm-hmm. of nag def na liggéeyam teg ci pour loxoy procureur ñaar fukki rapport mm-hmm. yoo xam dañ cee duut ay baaraam ne ñii jàpp nañu ne du ñu def na présomption de détournement grave présomption d' infraction pénale nangam nangam yow procureur mu ngoog teg nañ ko ci say loxo. du dëgg procureur la république nag liggéeyam mooy traité dossier boobu traité ko kii ko jox ko juge juge ba woo ñi nga xam ne ñoom lañ dut baram devant le tribunal ñu seet est-ce que ñoom la wala du ñoom lool lay doon mais of naag moom liggéeyam bu ko defee ba tege ñaar fukki rapport teg na ko fa ma nga ca laalu ci benn bu Cheikh Anne dong lañ ci tudd luy ndey ñu jël rapport rek bëgg ko def problème te ñaar fukki rapport nga fa gannaaw loolu beneen kii bi naan euh, cellule nationale euh, de traitement des informations financières CENTIF mhm. wóoruma mais nee nañu am na juróom lu ma ëpp juróom fukki rapport yu CENTIF yi ci kaw procureur euh, table procureur Petro-Tim affaire baa nga fa affaire u 94 milliards ma nga fa boolewul ak nag rapport yu bari yi nga xam ne président la nee na teg na ca loxoom. yooyu yëpp kenn laalu ko dina ci ñëwaat. ah waaw d'accord d'accord yooyu yooyu yëpp. Ah. ki ñu magaan ñu teg kenn laalu ko. Mhm. mais dañ ko bëggul a laal parce que seen ñooñ ñoom lañ duut baaraam. te ñu leen jafe-jafe. Euh, justement euh, président Macky Sall yàgg nañ ko dégg muy wax waxu bon gouvernance di ñu wax également ko moom du làkkal kenn koo xam ne joxoñ nañ ko baaraamu tuuma mais ñu gis également que ñu bari ñu ñuy épingler ci ay rapport soit daf leen di jox ndombal tànk ci gouvernement bi wala sax ñu jël alalu askan wi dénk leen ko est-ce que yoon la ñuy wax waxu euh, bonne gouvernance ci gouvernement boo xam ne noonu la ñuy doxalee. xam euh, xam nga ko wax benn bonne gouvernance nit ku nekk loolu la mais Sénégal bi ku fi wax bonne gouvernance naa fekk nga ngay ministre ngay député ngay sëriñ loo mën a doon ku fi ne bonne gouvernance nag fi di naa fekk nga euh, li fi ne ak gouvernance comme yàlla ak bonne gouvernance euh, ak yàlla ak yàlla bonne gouvernance dafa am nu mu mel bonne gouvernance lu bon bon mais sanction dafa baax ci mi réew nga def li nga def du jaarul ci yoon ñu jaar la ja teg la ci yoon pour ñu ci saganaaw gis ne ah lii kat bu ma ko defee lii lañ may def mhm. loolu moomul Sénégal prénom président de la boo xam bi euh, politique la teg ca kaw ñi mu xam nga lu mu lu mu bëgg ci ñoom mun leen dem leen ci terrain bi politique mhm. lu ay neex def te moo ni ku def naa la nangam duma duma làq kenn nit nag ngeen jéggal ma lu toll ni président de la lu fukki million juróom-benn jox la seenum réew yaakaar la nga am fa juróom-ñetti la nga waxoon la defoo ca dara da nga leen a wor ay waxam boo ko méngaleek ay jëfam tey dafa wor Sénégal mhm. li tubaab il a renié tous ses engagements damay fàttali turu Serigne Abdoulaat yàlla yàlla yokki lu leeram dafa wax ni booy wut gor di wut ko àndal da ngay fab wax yi daawam ak jëfi renam nga méngale ko bu ñu wuutewul rek nit a ngoog waaye bu ñu wuutee rek wutil keneen alors wax kàddu day day day day tënk gor loolu nag nun sunu sunu sunu sunu sunu président wa waxam tënku ko alors euh, livre bi nga xamante ni Pape Alé génne na ko wax ci scandale COUD bi Nafi waxoon na ko alors euh, tey jii ñu brandir ni dañ leen di yóbbu ci yoon yow plainte yi lu la ci. <coughs> ji nga soxna si man bu ma doon xaritam moom Cheikh Amar wala may mbokkam wala may sëriñam wala may camarade de parti dama doon ko tëjal sa parce que li muy wax li tubaab di wax c'est ridicule damay porter plainte Ablaye Ablaye Pape Alé damay porter plainte Nafi Ngom tam man sax boole na ma ci. waaw dama ni plainte am ba mi ngi ci euh, euh, taabali procureur au lieu que moom muy porter plainte na procureur traité plainte bi jox ko juge juge bu convoqué ñoom Pape Alé Nafi Ngom mënuñu ko convoqué dañoo xamul li ñuy wax. bu bu ñëwee bu Pape Alé waxul dafa xamul texte yi eh, moo tax mu ci tudd na eh, ba tey bu Pape Alé ñëwee eh, juge bi ne ko yow li nga def yaa tooñ nangam nangam avocat Cheikh Omar bu ko neexee ne ko na ma jox fanweeri million indemnité nangam ñu ne ko tëj la nangam waaye loolu kay moo gën a gaaw mu naan day porter plainte ensuite na jàngiwaat ma waajoo jox nañ koy responsabilité waaye du waajale ak déet waay. gis nga inspecteur général d' état est pas n' importe qui maa ngi beeg texte boo xam bi sax mun wax na du ma am jotali leen ko lii waaye ji nga même bu defoon njaaxum ba gën a garaaw madame Nafi Ngoy Koita njaaxum ba gën a garaaw loi bi bi teg loof nag dafa ne cour suprême rek moo leen mën a àtte bu njaaxum nga gën a garaaw laa la buñ ko defee cour suprême rek. nga fekk am Cheikh Amar naan day présenté nit na koy mu wax mu noppi. yow plainte bi lu la ci yow yow mi ngi tudd. ah danga jege na fi ngom parce que dañoo liggéey of nag la nee na moo nu digal. maa ngi nee na moo nu digal moo nu digal moo nu digal li mu wax sa plus grave moo ko bind. na fi na fee bind rapport bi. Mhm. loolu soxaanu ko waaye yéen lii ma leen di wax te téléspectateur dégg yoon wii projet bii ma leen wax. bi mu jaar ba assemblée générale di décider à la majorité dañ ko yóbbu cour des comptes loolu nu ko na ngoom koy di bind kooku ay waxi ka waxi la def nay njaaxuñam yu dul jeex yu kenn mënta wax feeñ na am na lu feeñ am na lu bari feeñu malgré tout président de xaritam la am na ñeneen ñu ko protéger ñu am xam nañ nit ñi xam nañ alors nga ñëw fu jox ko ministre de l' enseignement de la recherche et de l' innovation. ji ngeen loolu erreur u Macky Sall bi gën a garaaw boobu la ji nga keroog ba mu njëkkee génn ma naan ko waat ci yàlla ba ma ko déggee dama am kersa dama ne eh ki moo si xan wala yàlla xam ne wax na ba pare xaw xam